du mën a continuer ndax boo nëbboo da nga def leneen naka su dul noonu kon ba nga wooree nga denc benn tooñ bi nga tooñ sa borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man saama ramadan imanan waxtidaaban xuffira lahu maa taxaddama min zanbi am ñu ne man xaama ramadan imanan waxtidaaban am ñu ne it nag yépp ay riwaayaat la benn bokk ci ak sa morom waaye bu mu ci mën a doon man xaama laylatul xadri waaye képp ku woor na yàlla dina la jéggal bàkkaar yi dox sa diggante ak moom yi paase ak yi ñëw nga jóge ci loolu nga woor nag fukk yu njëkk yi yàlla ne kat jéggal naa la jéggalaale lépp loo ma tooñoon waaye jéggalaale lépp loo tooñoon sa bopp ci sa biir diine nga woor fukk yi ci digg bi yàlla ne yërëm naa la kat nag fi mu ne te ku ñu yërëm ku ne dinañ la xettali kon dinaa la xettali moo xam sa diggante ak yàlla la moo xam ci wàllu àdduna la moo xam ci wàllu dund bi la moo xam ci wér-gu-yaram moo xam nattu yi la lu mu ci mën a doo yàlla nee na méngoo naa ko te dinaa la xettali ndax ku ma yërëm ku ne xettali la nga woor fukk mujj yi mu ne la goreel naa la nag fi mu ne fi mu ne moom ah jox naa la sa freedom mooy ne lépp lu la waroon a lor ak lu lay gàllankoor dox sa diggante ak dugg aljanna génnee naa ko fa fi mu ne yow kenn mënut laa tere dugg aljanna aljanna mooy sa dëkkuwaay nga def yii ba pare nag yàlla nag indiwaat beneen dund muy gannaaw koor ah nga am necco bi ñuy ooyee nit maanaam doomu aadama ya insaaniya nit goog nga doon muy humanité nga di ci dundaat nag war a amaat yeneen tooñ yu lay gaar ci sa kanam bu boobaa nag tooñ yooyu mu war a doon lu ñuy moytu ndax boo sangoo ba setkat nag la taxoon ngay sangu mooy bañ a tilim kon boo xasee ba set ba sol say sér yu set war ngaa fexe nag ba moytandiku taq-taq yi ak tilim-tilim yi ngir ne seta a taxoon a sangu bëgg set kon boo bëggee set ba sangu kay nag demaat nag di dugal sa loxo ci lu tilim kon nag yow li nga doon def amul njëriñ kon nag fexeel nag set googu nga gaayit ko contrôle sa bopp ba doo duggaat ci leneen lu lay tilimal looloo tax ñu indi tomb bi nga xam ne mooy tooñ mu am ñett nag bi nga demee ba ci fukk yu mujj yi yàlla ne ñaar yële nag jéggale naa ko waaye am na bu des boo xam ne mënuma koo jéggale wala juma ko jéggale ndax moomeewuma ko maa moom ki ko moom waaye moomeewuma tooñ woowa mooy tooñ bi nga tooñ yàlla ci sa moroom ñett yépp tooñ la tooñ bi nga tooñ yàlla ci yàllaam nga ak tooñ gi nga tooñ yàlla ci sa bopp mooy jaamu gi nga koy jaamu ak tooñ gi nga tooñ yàlla ci sa moroom ñett yépp benn bu ci ne àq la bu la yàlla tere nga jëf ko kon tooñ nga ci yàlla tooñ nga ci benn bi nga tooñ ci yàlla boppam jëmmam benn bi nga tooñ ci yàlla sa bopp sa jëmm benn bi nga tooñ ci yàlla sa moroom jëmmam kon ñetti toñ yi mo am bi yàlla jéggale nako bi yàlla fexe na ba raxas la ca moy gorel na la ci safara benen bi nak moy sa digënté jaam ñi rasul sallahu alayhi wa ali fexe nak ba indil ñu ben culture moy culture bo xamné suñu ko défé booba it day dëñ moy lan moy fexe ba buñu jullé korité ba pare ku ne jox sa loxo sa morom neko bal ma ak mu neko bal na la bal ma ak bal na la yàlla nañu yàlla boole bal su ko defé nak bu ngeen ko balu anti ak ta fas ko ci seeni xol rek yàlla ne kon nak jeex na tak legi nak toña toña ñewat yàlla ne la antaqimanna min zalimin wala adh-dhulmu zulumaatu la yunus bi sallallahu alayhi wa alihi wax al-khiyam tooñ ay lëndëm la yulay topé aduna ba al-akhirah kon tooñ sa borom war nga koo moytu waaye tooñ sa morom it war nga koo moytu mbokk jullit bi tooñ sa borom réy na lool comme ni nga xam ne noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa ali nee na bàkkaar benn ci tuutiwul nee ndax sa ak sa borom yowmal khiyam bo demone ba amulo ben bakar sax te mu leer la it waye sanjum sa borom ci ci sa morom dana tax doto wolu ben tiyaabo da nga ragal teyit nak bakar bàkkaar lu mu tuuti tuuti nga diko xeb a ah, man la tardel bespench dañu ne ñett yi bàkkaar duñu ko xeeb aq duñu ko xeeb jàngoro duñu ko xeeb boo amee bàkkaar demal tuubi boo amee leen nit ak xam lu mu tuuti tuuti delloo ko ko boo amee feebar demal faju kon ñett yi lu mu tuuti tuuti bu ko xeeb te bu ko yar muy màgg kon nag nanu continuer setal sunu bopp ci sunu digganteeg sunu borom yonentu bi sallallahu alayhi wax na ne nee na na ngeen di baril tudd yàlla ak istixfaar nee na kat nag seytaane day bàkku ngir seeni bëri bàkkaar mooy mbégteem nee na waaye ñu nit dañuy bàkku ci kem sunuy bëri sikrullaa ak istixfaar ndax mooy gàcceel seytaane noone itamit la waxee ci beneen addis ne nañuy tudd yàlla ndax tudd yàlla dafay far meeru yàlla wala dafay far ay duma yu yàlla naroon a duma aw xeet wala aw jaam su ko defee yooyu nañu ko fonk ñu fexe tamit ba yéwénal sunu jikko yi sunu diggante ñu nu neen boobu nag moo gën a interest ci wàllu société bi ñuy dund jafe-jafe yi am dafa am tooñ yi nga xam ne moo waral jafe-jafe yooyu mooy benn bi fexe gi ñu fexe ba perte sunu jikko yu bax yi ñu amone nga xam yalla ñu ko tagatalé won ci ay jaamam yo yu mu gëreem la waye mu diko rotal ba ci jaam bi nga xam mo mengo méngoo ngërmande yooyu yépp di dox ba ci sunu mag ñu bax ñi ñu mengo jikko yooyu di def ci njobot gi ñu